am gas moom da xaw a yàgg léeg-léeg at ma sëñ bi di tàngam daa ma ca topp rek mooy 1336 bañ demee ba ca jumaa de Saniya ba am ca ñaar fan ak juróom-ñaar waaw booba la sëñ bi nag tàmbali tabaxug jëmmi jumaa ji bis boobu sax bisu altine la tombeeloon boobu itam ci yor-yor la sëñ bi ñëw nag def yi mu lay bëgg wax. nee sëriñ bi daa wàcc ca pax ma ñu gasal xubba ba fekk sëñ Muxtaar Bintaloo mu ngi ci wetam yore ndab li nga xam ne moo def ciment bi sëñ bi ci loxoom moo jël turéel ba tibb ca ciment ba daal di wax bismillahi teg loolee mu tibboon ca suuf mooy xam ko war a teg daal di jël aw doj teg ko ca kaw loolee mu njëkk a ca suuf ci ciment dafa jël doj wa teg ca kaw daal jël pikk ba wax bismillahi daal di dóor ca kaw doj woowee sëñ bi daal jàng nag laay bi wax ne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 Tawfekh Production. ndax ah, lii am lépp tawfeer ci sëriñ bi mën a may. gën noo tawfeer ci sëriñ bi.